Euh, asalaamaaleykum mën na Bathie Sow euh, nekk chargé de communication bu comité électoral Touba Mosquée buñ bind élection présidentielle bi nga xam ne 24 février tey nag mu ngi janoog askan wi di leen wax ni leen comité électoral bi nga xam ni moo nekk Touba Mosquée buñ bind dina démarrer ay activités ci samedi bi ci loolu nag ñu def présentation ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo ŋàng comité président de la république ci gox celui-ci Sidi Mbacké Abdul Aziz mon président honorable Matar Diop nekk le coordinateur les vice-présidents ñu am ci Amadou Fall Naydé Bassirou Mbacké Diakhaté ñu am ci aussi son excellence Bata Djakate, aussi ki ñu waroon njëkk a tudd sax moi le président Moussa Cissé Lo bi nga le ne moom mooy président d'honneur zone bi si jigéen ñi madame Ami Baké, Nek assistante direction des affaires étrangères mon mu responsable des femmes le jeune Khadim Diop Khadinia Babacar Mbaye bi nga xam ne la laa secteur communication bi ak Sidi et Serigne Abdou Karim Baké, ak xale yëpp ñoom Bafal le ñëpp ñu zone une mu zone am solo nek comité électoral bu am dolé polariser 71 bureaux de vote ci lolu nak ñuy wax ni ñun dañu am sas ndax président Macky Sall li mu def ci Touba waye ñun ñi dëkkee Touba mosquée dëkkee Guy Mbind dañ cee ëppale te li mu jëfal waa Touba mérité na ñu delloo ko njukkal mérité na ñu voter ko au soir du 24 février mu am ndam di wax ni nak ñu ngi wax bépp rek sympathisant wala militant boo xam ni bëgg nga bokk ci liggéey bi nga ñëw ci suñu permanence xam naa ni suma xarit Babacar Mbaye sama rak dina ñëw ci programme yi nga xam ne moom lañ fas yéene déroulé durant toute la campagne dina gën a leeral adresse bi fi nga xam ne moom la ñuy daje saa su nekk muy suñu carte générale dina wax ni leen daal ñun waa comité électoral Touba mosquée bu sóobu nañ ci liggéey bi daañ joxe suñu doole daan joxe suñu xalaat daañ ànd ak suñu kilifa yooyu fexe joxaat président Macky Sall ndam lu yaatu ci bureau yi nga xam ni moo nekk Kër Sëñ Ñaan ak Kër Baye Laat Ndaamaatu. mbokki Touba ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi leen di salaahu salaam ñu ngi ñaanal sëriñ fi tam wér ñu ñëwoon tey rek pour leeral dëkk bi nga xam ne moo di Touba.

pôle bi nga xam ne soxna yi ñoom ñoo ko seq ñu fas ko yéene def defin boo xam ne dafay wuute nag ak façon bi nga xam ne moo fi doon am ñuy xool ay responsable yoo xamante ne nii tey pare na nañ le président Macky Sall tey am nañu ay nit yoo xamante ne nii tey buñ leen woo dinañ leen wis ñu dem toog ak ñoom organiser ay teel débat yu am solo yoo xamante ni dinañ leen leeral li nga xam ne mooy liggéey bu am solo bi nga xam ne président liggéey na ko ci biir dëkk bi nga xamante ne nii moo di Touba service bi aussi dinañu def ay visite de proximité ci biir gox yi ak ci biir kër yi waxtaan ak euh, population dinañ ko def aussi ci garage yi def ko ci euh, garage su sareet parce que nag tey euh, dafay yomb trop ñu waxtaan ak population Touba ndax dañu leen diaboliser ak le président Macky Sall ba tax ñenn ñi am yenn position yi mais ku nekk xam na ne président ni mu fi liggéey ci sept ans yi bu ñu xoolee depuis indépendance ak tey amul benn président boo xamante ne nii jaar na fi liggéey fi liggéey bu toll noonu kon jot na nag ñu leeral askanu Touba li nga xam ne moom la président de la République liggéey mon frère Bàcc wax na ko sànq fi nga xamante ne nii fi la suñu quartier général bi nekk ci route Ndindi bi diggante Ndindi ak euh, corniche Daara Jolof foofu la suñu quartier général bi nekk avant route Bakhya foofu nag

amoon nañ problème parce que demoon nañ ba am problème fan la ñu war a sotti euh, ndoxu fonds yooyu ñuy vidé président Macky Sall dem na ba Jembre mu defal ñu fa benn centre dem ba Kante Balla ji aussi mu def benn centre boo xam ne dafay concerné mbalit Touba yooyu yëpp nag dafa nekk kumpa ci waa Touba. kon jot na sëkk mu leer ci seen bopp ba bu ñu demee ci le 24 février ñu jël seen carte jox ko le président Macky Sall kon vraiment ñu ngi ci woo ñëpp ñi nga xamante ne ni ñoo dëkk Touba rawatina ñu dëkkee Touba mosquée rawatina ñu dëkkee quartier bii di Looyeen wala Guy Mbind wala jàkkee Sëñ Mbaye Ndiaye ak li ko wut lépp ñoo ngi leen di convoqué ci suñu quartier général boobu képp koo xam ne ba nga jàppale le président Macky Sall ñu ngi lay woo foofu ñu ngi sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu kanam Euh, ci Jean jeune Kibir ci comité électoral boobu noonu ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. képp le bëgg nga ñu jot nga ci numéro yi te yi ñuy bëgg 77 326 21 16. 67 77 385 55 00 wala 76 331 52 13. Priez-vous le 24 février pour un deuxième mandat du président Macky Sall.